tostan ONU Femmes PNUD ak nguuru Sénégal ñu lëkkaloo ci benn projet boo xam ne ñu ngi cay sàkku soppi xalaat ak doxalin yi ñu am ci yemale jigéen ak góor li ma waral ci njaafaat ñu taxawal fa ñeenti club ay ndaw yoo xam ne seen liggéey mooy wax ak askan wi ngir mën a soppi doxalin yi ndaw ñi war a wax ak askan wi ngir soppi gis-gis yu mel ni góor dafa war a féete ci kaw jigéen saa su ne. masculinité positive yemoo la rek ci wàllu sañ-sañ dindiwul baatu góor joxul beneen gëdd jigéen lu mu amul déedéet jigéen jigéen rek lay doon góor lay doon yi ci biir kër gi dañoo nekk di améliorer rek maanaam am na lu baaxoon ci aada ak cosaan mais am na ci loo xam dañ ko war a soppiwaat xool fi jamono toll tey góor ak jigéen ñëpp war a dugal seen loxo ci nekk kër gi pour ñëpp am dal surtout ci yaru xale yi góor war na ci dugal loxoom mais jigéen aussi war na ci dugal loxoom loolu nag suñu doxalee masculinité positive ci biir kër yi day tax boo boolee xale yëpp ñu comprendre ne war nañu jàngandoo ku sensibilisation bi waaye tam fas yéene jàppale fanweer ak juróom xale yooyu ci seen liggéey boobu ñu nar a def. ne ni collectivité bi en milieu séeréer lañ nekk mais bi fépp fu mu laaj ñun pare nañ ci ay yu mucc ayib ngir mën a matal seen yéene. formation bi lu baax rek laa ci gis ak xam-xam faw ñu waxtaan ak ñoom suñ pare si ñooñu wàcc ci terrain bi ñëw ci paa ñëw ci maire su jaree ñu di ko def def genre yi waxtaan teg attaaya te incha allah ñun ñëpp dinañ ci jàpp. masculinité positive wala pexe yi nga xam ne dañ ko jël ngir damm xalaat yooyu nga xam ne góor day féete ci kaw jigéen ak soppi comportement yi bokk na ci gis-gis yi gën a fës si projet TOS ci biir juróomi commune yi nga xam ne moom la projet bi tànn.